waxtu daal di jot ci bile l'école euh, fare ca dakaar Plateau euh, fii nag njàng mi moo ngi woy euh, gannaaw ba mu waree daal di xool classe yëpp directeur bi di xam xamle lii. j'ai constaté que tous les enseignants indi nañ seen kay mobilisé ko li ci des nag bi ma toogee ba heure bi nga xam ne débrayage ci la nekk j'ai fait le tour des classes pour vérifier ce sont ñi dem grève ak ñi demul grève mais bi ma vérifié daal ñëpp a ngi sur place. leneen la ñu nemmeeku ca collège les Mongi. foofu nag ñaar fukki simili gannaaw débrayage ba mu jotee élèves yi fa des bariwul foofu la ñu ne di foo fukki professeur ak benn ci fukk ak ñaar ñoo daal di dakkal njàng bi ba 10 jotee. tey fukki euh, professeur ak ñaar laa doon xaar pour ñu def cours waaye fukk ak benn yi dañu observer mouvement bi léegi nag comme fukk ak benn yi defuñu cours. man mënuma retenir élèves yi fii dama communiquer ak ñoom ne leen ñu rentrer tranquillement li ñu dàq kuur yi nag mun nar a gàllankoor njàng meeg njàngale mi. xale bu war def cours deful cours loolu dina dina dina am jeexital si si si jàngal jàngal bi ak xam-xam bi ñuy def ci moom. yooyu la élèves nag ba ñu xam leen ni élection lañ koy dàq ni ba léegi ñu bari ñu doon ñëwee école dañ kaa wàññi ndaxte dañu ragal daal di dajeeg manifestant yi. ay yoo xamante ne dañuy ñoom dañuy ne manifestant yi ñëw ba côté bii ñun ñu ngi jàng fan yëpp mais suñu classe am na ay absent yu bëri. ah dañu ñibbi balaa ñu ñuy sànni xeer. parce que y a des manifestations partout. donc il faut mieux yooyu la manifestation nag yi nga xamante ne plateforme yi ñoo ko amal ngir daal di sàkku élection ñu daal di koy amal yëf yi di door ci aljuma loole nag euh, nar a am njeexan.